daa ànd ak moom mu yemale ñëpp barki Cheikh Ibra Fall soxna Xadi moom boo gàttee gis-gis rek di nga ne man la gën a bëgg ci ñi mooy àndal barki Cheikh Ibra Fall soxna Xadi baax la def ñun de moom jooy ñu leen ci moom ak wéeteer rek barke maam Cheikh Ibra ndax moom mu ngi àjjanaay firdawsi si Cheikh Ibra Fall jërëjëf waay wasalaam jërëjëf tabarakallahu kon xanaa demee ñëw rek ci Lamine Gueye Zikrullah euh, sëñ lamin jegesil incha allahu moom lamin Gueye zikrullah wallaay du ma tàyyi di ko wax ànd ngir yàlla nga jege si du ko yàq tukki bu sori du ko yàq waaye deeyit du ko yàq mukk ànd ngir leneen noppee gis loola rek ànd ba yàqu te ñoom ànd ngir yàlla rek lañ àndee woon ak soxna Xadi ndeysaan sëñ Lamine salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu waaleykum salaam sëñ Kabir mhm. ginnaaw bi ñu sant yàlla mhm. jullit Seydina Mohamed mhm. di wax jërëjëfe Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall soxna Xadi nag suñu xel dal na ci moom Kabir. Mm-hmm. di ziar mbokk taalib yi nga xam ni bi ñuy mujjee gisee mag moom defe naa ni mbuur la. Mm-hmm. ci cant gundoon jàng mand fa ak sëñ am sa Mbàkke. ak mm-hmm. sëñ Xaadim Mbàkke. keroog bi mu tuddee yàlla ma ñëw ci bërëb bi. mi ngi tudd yàlla waaye daa dem jëlal boppam benn seize. ñoom ñu ngi may dégg tegal ma ko ci digg bi na ñëpp ñëpp yëg. maddaa tudd yàlla lu yàgg dajale àddiyee jox ma di ko yàlla baaxal dëgg la yàlla na ko tur yàlla yuy teeru laa ilaha illallah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 mbégum jaam ya waay sëñ Bamba nee na bëgg leen ngir li ma bëgg Fall Sëriñ Tuuba nee na bëgg leen maam yi soxna Jabdu Fall ngir gën ma bëgg Fall la ilaha illallah Fall la ilaha illallah ilaha illallah Cheikh Ibra la Muhammadu Rasulullah La ilaha illallah ya la la Muhammadu Rasulullah محمد رسول الله لا إله إلا الله بدر dem na fa bàyyi Sëriñ Saal kenn du moom Sëriñ Bamba la moo demoon wiir wiir محمدا لكن بموم زين بامبا لا غورغي دماني لا لا لا لا موم يم موم يم سرين توبا موم يم زين بامبا لا جلا جلا لو لا dem na faa kenn du moom sëriñ Tuuba la bayu bayi saay eh, la la oh, waayu xaadimoo ilala lambar naa dem na faam baayu baayu saal kenn du moom Sëriñ Tuuba baayu basak baara ابن ما إلا الله إلا الله أمد فار سير جاي budul woon ak yow faal mu ñaaw Cheikh Ibrahim Cheikh Faal la ilaha illallah man laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah faal maam Seera Faal ay booye xemu ñaaw Faal Seera Faal jam yaa leen ramoom faal laa ilaaha illallaah faal fan laa ilaaha illallaah faal faal ña gàddoo dem ba nooy ay sëriñ dara faal naar bi am moom kaw saray sëriñ faal nee naa sëriñ Asan faal faal doom nga man faal faal laa ilaaha illallaah faal laa ilaaha illallaah jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Borom Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima eh, sëñ Lamine Kabir ku dégg ni may waxee xam ni dëgg la dama jóge ci waar wi rek yegg si fi dëgg la ndax soxna Xadi daa nekkoon ci waar ndeysaan soxna jab bu Sërif Assane Fall moomu di ko jaale ak waa Noor Foire gépp wallaay ndax boole woon nañu benn cant sëñ Fallu foofu ca Noor Foire moom soxna jabbu ndeysaan soxna Xadi mii keroog ñu ñëpp danoo barkeelu mu fanaanoo ko te ba ñuy tudd yàlla ñu ñëpp ku ci nekk di yëkkati addi ñu jox la dëgg la muy ko am yar di ko am teggin man musuma nuyu taxaw fu mu la nuyoo sukk na wallaay dëgg la am yar am teggin soññale nag soxna yi ngeen gën a góorgóorlu ñun suñu xel dal na ci moom bu baax a baax barki seexul xadim wallaay ndeysaan ndax turu yàlla dara féetewu ko kaw mhm. te yàlla rek la daan tudd bëgg mbokk taalibe yi fonk mbokk taalibe yi am yar ami teggin mooy ñun suñu xel dal na ci moom bu baax a baax yàlla bu ko cat diitu yàlla na ko seer a fàll ràmm amiin waay la sëñ Fallu Mbàkke ne woon Cheikh Ibra yaay ambulance na ko ram bu baax a baax amiin waay ci barki Seexul Xadim amiin Allah ak ñaari rakk yi nga xam ne moom lañuy def ca ndar mm, mu tombeeg bisam bii ak tawfiix la mm. waaw kon soxna Xadi yàlla na yéen mbaa suñu borom wàcc moom kabir nag suñu xol seet na ci yow guy ndax dama lay suivre lu bëree bëri. jërëjëf jërëjëf xëy na léeg ak jot gi moo may xaw a tënk. Hmm. waaye da ngay jàmbaar lool yéemale ñëpp yooyu di ko yàlla baaxal. maa ngi gis ni ngay dalalee sama mbokk taalibe yëpp. dëgg yàlla te Pape Faye mi ma koy wax fee ñu toog léegi ne ma xoolal Kabir daa am yëg-yëgu way bi. wallaay wallaay xale bi way ci Serigne Saliou Mbacke. wallaay wallaay kon yow it yàlla na yàlla defal jàmm. defal ko borom kër gi. Hmm. ci barke Cheikhul Khadim soxna Khady nag bëggoon naa gàtt na waaye hmm. ku nekk na def faatee ndax ñetti xulwa kaamil la faatiha bu sell ñu defal ko ñetti xulwa ko mm-hmm. ko suñu borom xari ko àjjana ci barki Seexul allah jërëjëf euh, Serigne Lamine euh, waaye may woo rek euh, sama mbokk mi di Serigne Ibrahima mbay sëriñ Ibrahima mbay na jege si rek tabaarakallaahu sëñ Ibrahima eh, sëñ Ibrahima Mbaye ana ah, waaw sëñ Ibrahima Mbaye waaw. waaw kooku mooy eh, doon jàng léegi ndeysaan muy sëriñ lamin Guèye. waaw Eh, sëriñ Ibrahima mbay mu yegg si noonu tabaarakallahu moom itam di sikarkat eh, nuy wax rek ni ca kanam tuuti dinañ ubbi téléphone bi waaye ñu may ñu tuuti rek incha allahu rabbi eh, tabaarakallahu ndax dafa am koo xam ni ndeysaan noo ngi koy taataan xam naa ni moo ngi may dégg xam naa mu ngi defi pexe incha allahu nu ngi koy taataan te pe yéeneem la yéeneem la lool yéeneem la lool bala ñuy ubbi téléphone bi rek nu jokkoog moom incha allahu rabbi fu naa mu ngi may dégg bu baax a baax tabaarakallahu eh, kon sëñ Ibrahima mbay xam naa di nga ma baal fu mu ñu dabee rek da nga may baal rek ñu jël ko dellusiwaat ci njàng mi eh, tabaarakallahu waaw kon eh, sëriñ Ibrahima salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. Seex Kabir noo jërëjëf di siyaare sunu mbokki Baay Faal yi nga xam ne ñoom leen fi fekk ñëpp waaye noo ngi jiital ci siyaar bi. sëriñ Seydi Muxtaar Mbàkke ci teg sëriñ Seexi Jëmb Faal di ñaan soxna si nga xam ne moo nu fi tax a daje mhm. dañuy ñaan rek suñ boroom taas nu ci barkem ndax lim nekkoon ba bàyyi koo fi dal na xel mhm. dañoo soññ rek nun ñu fi teew mhm. ah, kon nu fas yéene yëkkati tur yàlla rek barke maam Seex Ibrahima Fall Lamp bismillah barke maam Serigne Fall barke maam Serigne Fall Lamp fas yéene tudd yàlla ma sëriñ bi barke maam la ilaha illallah faal rabbana la ilaha illallah la ilaha illallah faal rabbana yàlla di buuroo di boroom faal seexi la ilaha illallah la ilaha illallah faal yàlla yaay buur di boroom

laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah yaanu sàkk yaanu moom laa ilaaha illallah rabbana laa ilaaha illallah yaa gabaax laa ilaaha illallah rabbana laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah yàlla yaay buur di boroom laa ilaaha illallah dem na jàkka dem na isëg la ilaha illallah tudd na doom ju leen a neew la ilaha illallah boo ñëwul woon mu ñaaw Seex Ibrahima Faal boo ñëwul woon mu ñaaw ku sopp Seex Ibra Faal boo ñëwul woon mu ñaaw Seex Ibrahima Faal lii lépp yow la Faal la ilaha illallah la ilaha

la ilaha illallah Cheikh Ibrahima Fall def lu baax am lu baax def leneen maam am leneen la la ilaha illallah yàlla yaay buur di boroom la ilaha illallah yàlla إلا الله يا الله يا يبور براد لا إله يا الله يا الله يا يبور براد أيوة لا إله إلا الله Serigne Ibrahima na kàddu yu ngi ciy toftool rek ci sa digganteeg jëmm ju tedd jooju di Soxna Xadi. waaw Cheikh Kabir. Hmm. Soxna Xadi nun ñëpp noo bokk kàddu ci moom. Hmm. li may wax ñëwagul moom la ñuy wax. moom wax. dëgg ndax sëñ Moussa Ka da baax du baax ba jàll baax. Hmm. waaye baax a ngi yem ci xotti baax. baaxaale mboolem xarnu bi. te moom yàllaa ko kàttanaloon mu aw ci yoonu mbaax te aw ci yoonu baax du dangay bari alal wala nga wala nga bari le dara rek aw ci yàllaa lay dimbalil boppam soxna Xadi yàllaa ko dimbalil boppam dëgg la ndax ku xool soxna yi xam ne ñi ko ciy roy bari na mhm. loolu nag bu nekkoon ci leneen ñu ko ciy dañuy am ci moom sikki sàkka mhm. waaye lim nekkoon ba bàyyi koo fi mhm. alhamdulilah dañuy ñaan ay yeneen soxna Xadi yu mel ni moom. jërëjëf te ñu ngi ci yoon wi. noo ngi siyaare nag. jërëjëf jërëjëf bu baax a baax. jërëjëf ndax yow ci rafetal ngay dox. jërëjëf sëñ Maam ak badu hmm. sëñ Pape Faye ak ñëpp ak waa xidmatul xaddim yi nu àndal. sëñ Modou Mbacke Gaynde Faas. léegi rek la may woo téléphone. xam naa dina dugg ci ligne bi. incha allahu rabbi ah, di feddali. kóllëreem ak soxna Xadi. ak ñim fi bàyyi. Hmm. mu doonoon nitam. Mhm. doonoon soxna soo xam ne kenn la woon ci moom. jërëjëf ndeysaan mi ngi jotal njaalam bu baax a baax. jërëjëf kon ñoo ngi jégalu bu baax a baax. jërëjëf sëriñ Ibrahima mbay tabaarakallahu waaye dañuy yegg rek ci sëriñ Alioune Badara Ndiaye zikrullah tabaarakallahu eh, sëriñ Alioune Badara Ndiaye zikrullah waaye eh, sama techniciens yi xam naa ne. nañ ma waajal ndax maa ngi waaj a ñëw ci ñoom loolu nga xam ni war nañ ko fas yéene génneel senegal ñu xam liggéeyu ku tedd kooku di soxna Xadi macha allahu xam naa su ma jugee ci Serigne Ibrahima mbay rek zikrullah euh, Cheikh Tidiane ak maam Sidi tabaarakallahu ma gaa yi ñu waajal ma rek ñu ñëw nag ci euh, tabaarakallahu sëñ bi salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw. dañ Kabir biir ngi siyaar bu baax a baax. jërëjëf ñu delloo siyaar incha allah. di siyaar bépp bay Faal bu nekk ci biir saal bi rek. Mm-hmm. ak ñëpp. ak auditeur wal fajri yëpp di siyaar baax nag sama yaakaar ci buntu Cheikhul Khadim uh-huh. Cheikh Abdou Karim Mbacke Falilou mi ngi koy seetaan ndeysaan waaw ndax bu ñun koy tàggu dëgg la ñu ngi siyaar baax nag di gërëm ci baax bi invitation bi nga xam ne moo tax ñu daj fi ñu ngi koy siyaar nu itam bu baax sëñ Abdou Karim ñu sopp ko lool ndeysaan mhm. ngir yàlla wóolëre woon nag rakkam ju tedd ja ndeysaan sëñ Abdou Mbacke ndeysaan mhm. nu ngi koy joytu noppee sëñ Abdourahmane dëgg la ndeysaan ñuy ziar bu baax euh, xalifa sëñ Fallou Mbacke di euh, sëñ abo sëñ abo macha allahu rabbi kon sëriñ bi waaw ni ngi ziar bu baax nag sëñ euh, sëñ Moustapha Sy wallaay ca lañ jóge léegi ndax daf ñuy bëggee Fass bi nekkee ci projet gi ñun la doon caravané tala albatro alay na di siyaar bu baax doomu njool fuuta ban fa fekk léegi siyaar ko fii ci Fass mooy Abdoul Aziz na fa lañ ko fekk léegi mu ko siyaar di siyaar Ablaye Mbaye njoogu tamit nee na mi ngi koy ziar Ablaye Mbaye bi bi way Ablaye Mbaye ndeysaan benn waaw nee bu faas bu faas fa laa jóge léegi wallaay ndeysaan ndeysaan bismillah kon ñu barkeelu wallaay bismillah Aline xamidul majidu la la la la jalla jalaal la la la la xamidul majidu la la la la jalla jalaal la la la xamidul majidu la la la la jalla jalaal la ilaha illallah jalla sanaa la ilaha illallah jalla baqaaw la ilaha illallah karimul jalilu la ilaha illallah albarisul warisu yow yàlla la ilaha illallah faradul samidu yow yàlla la ilaha illallah yuxil mawta la ilaha illallah xëyu laa yamuutu la ilaha illallah yuxil mawta alxayu laa yamutu yaay dund te doo dee laa ilaaha illallaah malikul aziim laa ilaaha illallaah xanaanul manaaru laa ilaaha illallaah xëru fataaxu laa ilaaha illallaah xayru raaziqiina yow yàlla laa ilaaha illallaah xayrul xaalidiina laa ilaaha illallaah xayrul muxlisiina xayru tawaabiina laa ilaaha illallaah aziizul hakiim laa ilaaha malikul mulki laa ilaaha illallaah malikul xuddoos laa ilaaha illallaah malikul masrixayni wal maxribayni laa ilaaha illallaah malikul zulumi wa nuuri yow yàlla laa ilaaha illallaah malikul arsi wal kursi laa ilaaha illallaah malikul leyli wa nahaar laa ilaaha illallaah malikul insa wal jinne laa ilaaha illallaah malikul siraati wal mizaani laa ilaaha illallaah malikul malaayika wal anbiyaay laa ilaaha illallaah malikul samsi wal xamari laa ilaaha illallaah malikul jannat salaam yàlla mooy bëgg a juróom-ñetti a yu mu bind laa ilaaha illallaah malikul jannat salaam laa ilaaha illallaah malikul jannat jalaal laa ilaaha illallaah malikul jannatul xuldi laa ilaaha illallaah malikul jannatil ahlaa laa ilaaha illallaah malikul jannatul adli laa ilaaha malikul jannati naim laa ilaaha malikul jannati firdaws jaamu leen ko balaa ñaaw ku la jaamul perte da ngay jóge ci gii kër yóbbu la ca geneen kër xam ne yàlla boobu mooy borom jaam da ngay jóge yóbbu la ca geneen kër nga xam ne yàlla boobu mooy borom jaam ñi nga wet lool ne cundum lool muy taw sa kaw garab yi di xàncax yi di sax sa kaw nga xam ne yàlla boobu mooy borom jaam jaam leen ko balaa ñaaw wala jaamul perte nga jaamu leen ku la jaamu perte nga jalla jalaaloo laa ilaaha illallaahu allahu jalla jalaaloo rahmaanu rahiimun malikun xuddoosun salaamun almuhayminu asiisul jabbaaru mutakabbiru alxaariqul baariqul musawirul xafaaru xawar waxab rasax fataaxu alimun yàlla yow yaay borom jaam soo nu jéggulul ëllëg bi su péntu boo jëlee siraat jàtt ko ci jahannama soo nu jéggulul faal dana ñaaw ay jéggal nooy jéggal noo ci barki maam Cheikh Ibrahima Fall Amar Fall Seer Njaay def leen ñu maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall mi a way wat foxtoori ay ni neera Cheikh Ibrahima Fall xas justal ma jaal Cheikh Ibrahima kol kamal wa salta xaq Ibrahima Fall lam yazal yuxtiri xaaba fi la mi ñuy bëgg a way soxna sëriñub Xadi nee na Ibrahima Fall abi waab dal Xadi man muxtaar sëñ bàmba na cas xasida gën a sëñ ibrahima mi may bëgg a wal babul muridina ibrahima fall kan sunu maqaama dunya wa uxraa wa barzaq ibrahima fall samsu kulli makaan islam yowmal xiyaam bila ibrahima fall imaamul kullu murlaaqa yowmal xiyaam habibullah imam kun ila maqal wax ibrahima fall babul uloobi wal bëgru bilaay ibrahima fall sufaa doore ku la fi saan walaaw abdul jalaalu abdul jamaal Abdul Jalaal Sexira. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Serigne Serigne Alioune Badara Ndiaye macha allah. indi am na solo xanaa waxtu rek a euh, kon bala may ñëw ci kàddu yi damay dem euh, réseau rek ñu indil ñu li nga xam ni ku tedd ki defoon na ko fii. muy euh, soxna Khady tabaarakallahu ma dem ci ñoom maam Sidi sama jinne technicien yi macha allah yal na yàlla sama borom wutuma ci yenn fayal ma leen. ndax li ngeen may defal soxla naa ko te mën a lu ma ko sama bopp yàlla na yàlla fay leen ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñuy sant bu baax boroom kër gi ñu may occasion bi muy oustaz Sidi Lamine Niass ne ziar baa ngooku tant yaa ngooku ngir diine ji rek kenn ku nekk gis fi sa bopp lii nag su ngeen ko gisee dara warulu ko lu dul dañoo amoon yéene dalal soxna Xadi ci ziar bii ñun dañ ko amoon yéene mhm. bi ñu koy fexe ak bi yàllay dogal dogalam bi benn la ñu ne kon comme jaaroon na fi te am na lu mu fi defoon nanu indi loolu yéen ñi nga xam ni yéen ànd ak moom te yàlla rek tax ngeen ñëw teew loolu rek moo ko waral waaye du caaginu dafa génn ku génn àdduna dañ lay defal hommage fii ci émission bi loolu taxal jóg émission bi de dafa am lu lu xew rek nu nu ci feeñal suñu yéene loolu loolu rek la kon tabaarakallaahu euh, maam Sidi dafa mel ni su fekkee euh, yemb na bu yembul itam waaw kay comme maam yemb na nu ànd déglu nag seetaan soxna Xadi ñu taxaw foofu ziyaara xalifa bu tedd bi di Seex Sidi Muxtaar Mbakke ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool ak njabootu Serigne Touba yëpp waaye kër Serigne Fallou Mbakke Eh, suñu xel dem ci suñu sang bu tedd ba tabaarakallaahu eh, di doomu sëriñ Fallou di sëñ Abdourahman Mbacke moom sëñ Fallou yal na yàlla dolli ay leeram ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ñu koy ziyaara bu baax di ziyaara suñu yaay ndeyloo tabaarakallaahu di ko ñaanal yàlla na fi yàgg ci njaboot gi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di ziyaar bu baax tabaarakallaahu sang bu tedd bi ñuy jooy rek te ñu muy alaaji Baara Mbacke moom sëñ Fallou tabaarakallaahu ko ziar bu baax di ñaan yàlla na yàlla dolli ay leeram ci barke yonent bi ñuy ziara bu baax itam euh, soxna Hadja Ndeye Fatou Fall tabaarakallah moom alaaji Baara Mbàkke ak mbooleem njabootu suñu fàllu yëpp waaye mbooleem njabootu xaadim rasul yëpp tabaarakallah su ko defee soxna euh, bi nga xamante ni ñu ngi koy dàkkantale zikrullah soxna Xadi Bayo dëkk fii ci golfu Sidd waaye ànd ak euh, daayira bu am solo bii ñu tuddee taysirul asir tabaarakallaahu di daayira bu am solo kon soxna xat yi euh, gannaaw bañ la dalalee nga bégal mbokk téléspectateurs yi ñu dugg ci waxtaan wi rek li ñuy njëkkee nag ci waxtaan wi mooy soxna xat ndax dafa dégg gis way rek nit ñi di way mu dugg ci di way wala dafa am dafa jàng dafa jaaral na daara ba noppi doog dugg ci way waaw laaj nga ma lu ma sawar a tontu ndax dafa am soxna yoo xam dañoo defe ni jaar daara ndax dañ ma ko defoon musóor yii bi ma koy musóoru dañ ma daan boddi billaahi wallahi ber ma ci bruq ne daal ni fiitu naa ba yàqu alhamdulilahi rabbil alamin man defe naa bi may dugg daara sama wéy jur bi ma sukk jur bi ma dikkee fi moom ni ko damaa bëgga bokk ci daara ju ñuy wax isbu tarxiya daf ni ma bu ma la ca dugalee doo jàng dama lay dugal rek yàq sama xaalis waaye doo jàng ma di ko sàkku fi moom it mu xam ni bu ma dugalee du ma jàng la wax daal di dugal sama rakk ju ñuy wax Seydina Jibril est que bi mu ko dugalee ma daa di daaj sama kondaane mu jox ma ñetti fani gute ma defar tufi bi ma jëndee moo ma bëgguma tudd wi defar fi mhm. bi ma defaree tufi di def su may jàngi di ko mhm. jaay ci yoonu daara ji bi ma koy jaay ci yoonu daara ji booba sama inscription ku ñuy wax soxna Kiné Sey yëkkati na jox ma maada ba sama mag ji way daal di dindi juróomi téeméer jox ma ma mottili ko booba jamono 3500 mooy inscription bi ñu jox la leetar bu nu bind chaque membre un mouton et un bool mhm. booba man maa ngi jàng école moo tax sama waajur juru jigéen deeni woon duma ko mën a boole dëgg la bi ma jaayee tufi nag ba am li nga xam ne tabarakallahu samay fourniture ak yëpp naa ko ci mën a jënd mhm. ma daal di ko ciy jënd mhm. soxna Kiné moom mu dëkkoon fii mhm. di def su sunuy wàcc nag mu di ma indaale looloo yombaloon sama njàng ndax dama daan dox su ma booba ñu ngi nekk fu sori ca VDN ba ba Liberté 5 xam nga sori na sori na sori bu ma rëccee damay dox bi may jàng nag di jàng ba mën a tiim xasida waxal ko sama bopp may def nag su ma rombee xasida goo xam ne xaw naa gàtt rek ma ma fàggu ko